da fii dafa saraxe woon jox ko juróom-ñeenti téeméer. waaw. jox ko juróom-ñeenti téeméer. Malick Fall Malick Fall. waaw góor a Fall yal na ko yàlla wuutal lu gën ñaari junni defal ko jullit yépp ah sama dooma jot juróom-ñetti téeméer ngay jox sëriñ bii sëriñ sama mbokk mu baax mi dëkk wakkaan tigi moo ne daf koy jële watiir ndax dafay luye ba tey yépp yées na ci jàng yi rek كورة جنب جعل ورقة التحكي تحكي له ما رواه لها وقال ناموس موسى هاكي فابتسمي waaw li nga gis lan la mu ne xam ko tey laa ko mos a gis sonal na ma nag lool bu na bi toogee jiblu na ku ñeeg mu ne mu ngoog ay surtout jàllale ko ci lupp càmmoñam bi yaa ngi koy gis mu ne ñëw na mu ngoog mu jàll ko ci lupp ndeyjoor bi mu ne ñëw na mu ngoog sàng leen ma sàng ma sàng ma ba wooyu nag am si waaye borom am si it feelu na rasul sidaaj malik foofu wala sidaaj malik feelu ko foofu baal leen mu tuuti jigéen ñi bi muy jaaxee nag nëbb jikkoom ju rafet ji ak yaakaar bi ñu am ci moom jinne waru koo feeñu lii nga xam ne itam mu ngi koy feeñu te ñu tëkkoo te koo bàyyi mënuñu ko tudde lu ñu jinne waaye nag comme làq naa ko ñaari yoon taxul mu dem te ne nañu malaaka du gis bokkub jigéen ju mësoor ma essayé bal na ñaret musóor ga mu ne ko gisatuma ko dem na foofu nag la xol bi door a sedd nag yaakaar ji doon a dugg nag mu xam ne li waa ji doon gis dégg ngeen ci jigéen ñi malaaka du gis mukk boppub jigéen ju mësoor dëgg jigéen ju mësoor day musóor mësoor musóor te nag Abbas président def naa di ngeen jot leefar bi ma jot tey jot naa tey leefar boo xam ne ki ko bind bind na leen yéen ñëpp kuy kilifi njiit bind na la tey laa ci jot man nag dama ci jot boobu maa ngi pare ñëw waaye li ma yàkkamte yàkkamte fexe naa ba tànn ba ba ba ba ba ba tontu ko ci yu bare bari yu xew yoo xam ne nduxum la ci réew mi di di di ngaam lu rëy ci ñëpp su ko rek toog na rasulullah pour le prouver ne li ko li ko feeñu du seytaane malaaka la mooy ndaw sooy dindi musóoram rek mu ne mel xam nga ne ndaw si def lu ñokkee soog robbam sama jëkkër ji sama yaakaar yépp ma def ko ci moom li bëgg maa jaaxal du am ne fiit ndiggam jóg jiital ko lëng ko monsieur Togo gu mag ko jox war a xatat na naw fal moo bàyyi xadi jotoo bokk bàyyi bàyyi la ci moom ñu ko fàpp sa doom ji na la na la nettali li mu gis jaar li war a xaa lu tax taaki lahu war a xaa ma ataawu laha xadijat mu ngi nettali góor gi li ko nebbi nettali ne ni la gis mu ne ko nag nettali gémmiñu borom mu sa daq mu sa fa nettali li nga gis sama jëkkër mu ne ko daal lu weex la loo mosula gis ci biir boo xam ne la wax fekk fees na ko del mosuma gis na mbindeef mu mel noonu dafa ma doon wax it iqara ndax na ma ko ñetti yoon bi ma génn gisatuma ko mu ne ko nag bi mu àgsee ci man te ma làq ko te mu di ko gis bi ma wujjee sama musóor ci la ne gisatu ko war a xatt ne ko waas kii naa muusi muusi xarta si mi muuñal xadijatu am nga ngeen ci jëkkër ki sa jëkkër gis mooy muusa mooy naamuusu mi daal dikkal muusee ñoom yahood ñu ngi tudde ji malayka naamuus buur bu ne dina am naamuus am haasuus am jaasuus am daasuus chef d'état bu ne am na dina am jaasuus dina am aasuus dina am naasuus dina am daasuus naamuus mooy ki lay indil yiw moo lay jëgaat ne di ñëw dina lay teraanga joo mën a téye sa nguur jaasoos jiim lay doon nga tomb ko soo dundee jiim gi xaasoos lay doon xaasoos mooy encens secret boo xam ne ci nopp lay déglu waaye du xool ci bët jaasoos mooy encens secret boo xam ne bët lay ci bët lay xoole waaye du déglu ci nopp dem ci pinc mi taataan sa nopp di déglu ak di xool nit ñi seen i melo yor carte d'identité bokkul kii jaasos la tudde kii haasos la tudde bu ci nekk Quran wax na wala te jasasu kooku di jiw fas aboo wa taassasu kooku lu ab lokk ki la mbërgaan la kii fii ci suuf soxna say ki nga gis day ki sa jëkkër gis day mooy ki daan dikkal Muusa kii ab yonent la mu meet ko alaaji mari bi ne ba mu génnee di tërëf ak jëkkër ji booba góor gi màgg na sil maxanaa yàggu sax mu dee dafa taxaw xooleen ba ñu sori mu dellu ci néeg bi am lu mu wax toog Maodo ne la mu wax xam naa ko ba mu leen dungee ba ñu sori mu dellu si moom góor googu ne ko sàkki naa moo si Moussa ko tasimi dafa di ju toog ak lu mu wuram tam tawar ko ci yàlla si daal ñi maa ne su ma xamul woon loolu doo wax yaa xay sal baaru ñaa loola li góor gi wax nga kat bi ndaw si àndeek Mohamed di dem nagoy googu loolu la wax boobu mu ngi ci quatre-vingt-treize ans mu ne yàlla te ni kuntu xayyaan ظالما جشعا وكنت غيرنا بالاخراش للعدم يا ليتني كنت فيه دمي جي فمو دلو دمي جوجي ديف تانيش فمو دلو خلي يا ليتني كنت فيه ظالما ظالما جشعا وكنت غيرنا بالاحراج للعدم تيوب نشرو لكم او دفع دفع دفع مكوس góor gi la ne ak a neexoon waa ji bés biñ koy génnee ngir mbañeel ak a neexoon fekk muy dund dund sax amul njëg mais bu ma dundee mënu may du baax ak a neexoon booba jamono fekk ma dem ngand ngand mu pëppit baaxul ak a neexoon booba fekk saaliman may dund di ngand moo am doole te biir yaa laytani fiha damir jaa ngi dellu ci nubbu wati gi waaw yaa litani fiha zaliman laa litani kuntu ina al-ixraaji hayyan yaa litani kuntu ina al-ixraaji zaliman yaa litani kuntu ina al-ixraaji jashan lam ñaan yëpp Ababacar Sadiq la ko yàlla jox waaw moom moom ñaan nga dafa këpp ci Seydi bi bëkki moo tax taxoon nañ na bi lool dèjà moom di ma la daan wax te mu tax ko daf ko ci tax façon boo xam ne sax dafa doy waar yëg nga ne nabi ngi juddu fukki fan ak ñaar ci gàmm ba dajeeg altine xam nga Ababacar kañ la judd fukki fan ak ñett dajeeg talaata ati waay may wasaani seeni bil qaari laqiyaan bay atiqun wasaani seeni bil qaari laqiyaan bay xam nga ne wala soofu yu atika rabbuka fatarda xaw naa niroog الابتقاء وجه ربي ولا سوف يرضى ولا سوف يرضى ابي بكر لا ولا سوف يؤتيك ربك سيد ابي بكر رسول الله لا باي وثاني سند القار الأقيان باي أتيب وثاني سند القار الأقيان باي نبي أمنا فك فرمير النار أبا بكر الجل فك ديسمي النار أتيب وثاني سند القار الأقيان باي ديسم بتق سخلق الطب أتيب وثاني سند القار الأقيان باي سيد أبي بكر أتيب وثاني سند القار الأقيان النبي برمير كوك لا إله إلا الله محمد رسول الله أبا بكر الديسي مفتيح وثني سيد القار الأخيان بيوم كيوني ألسني أبا بكر تيوب ثلاثة أتقوي بي وثني سيد القار الأخيان بي بيو دوك شكنت من نول مومولي نبي جيتو أبا بكر تبتك سامش لنشما في الخير يزيق لسابي لا تحسن لا لا لا أتقوي أديب ما يوثني بالقار الأخيام باي جيت لي بتي قنتمي أبا بكر يركم ولا ندم دب كنا دفن دانك ما جيك دوب أديب وثني بالقار الأخيام باي عندنا لوي غاني غاني من غسوي نك أدنا من غسوي من القار ما قد كان من يقين ما جيك دوب بخ مو نك مو بك مو بم سانكو أديب وثني بالقار الأخيام mooy boobu ba mu jeex takk mu des mel na pax mu sës ci testanam min alxaar ma qad kaana minu yaqiinu ndekete ci pax moomu la ñàngoor mi nekk ñàngoor mi atta matt ko atibun wa zarifan bil qaari laqiyan abbas foofu sëriñ si dañ fi firi piri moo xam ne uute naag ñoom na may waxe atibun wa zarifan bil qaari laqiyan nee na ba mu ko mattee ababacar dafa jooy ronga ñit دار لك النبي أتيق وثالثني بالغار الأخيان وإمام دم يوخنا أبا بكر فنيق نيق يدار لك النبي نخ جويديني وكسالت أتيق وثالثني بالغار الأخيان من قبل لسما فيك لولان تفندوني إني لأشد ريح يوسف لولان تفندوني أتيق وثالثني بالغار الأخيان booba toog naa doom yi ne naa leen noonu naa leen Yuusufa deewul de ngeen ne dee na waaye dafa mel ni fi mu ne xeta man may fekk si fii ma toog atibun wasani sani bil xaari raxiyan lam tufanniduni su ma ragalul woon ngeen tudde ma ko naax min alxaari ma qad kaana min yaqin sëriñ si day kii daan góor gi dana xale yi su ma ragalul woon ngeen fenloo ma doom nag du fenloo bàyyam ñaaw na man damay firi ne su ma ragalul woon ngeen tudde ma ku naax day ma ne inni na ajidu ruuxa yow atiqun wa tanisani bilxaari laxiyam bay mu nga jëlee laa jëlee léeg-léeg mu nekk taqdimu jawaab wala taaxiru xaalu ci ne mën naa nekk atiqun wa tanisani bilxaari laxiyam ndax lu koy arab dafa yaa benn baat bu ne dina firi ñeent baat atiqun wa tanisani bilxaari laxiyam ولقد حمت به وهم بها لولا أن يبر عن رب من الغار ما قد كان من يقين soxna saak Yuusufa soxna saak Yuusufa Sulayqa wala Saliqa bu la neexee nga def ko tasxiir bu la neexee nga bañ ko def tasxiir Sulayqa baax na Saliqa baax na moo doon jabari premier ministre ba te muy Yuusufa di fa surga la doxoon seen diggante ci bëggeel gu mu ko bëgg atiq wa sani isni bil xaari la xiyaan bay alquran nee na ba mu ko tëroo tëru mu të atiq wa sani isni bil xaari la xiyaan mu nax ko di ko def loo korwe ci biir cabinet am min alxaari ma qad kaana min yaqiinu mu dugg mu tëj bunta ba mu jëkkëroon mu tëjaat benn ba ba mu des di ñu dugg ñoom ñaar atiq wa sani isni bil xaari la xiyaan mu ne rëj ci digg lal bi nekk iiti lakk min alxaari ma qad kaana min yaqin dama bëgg nga toog fii min alxaari ma qad kaana min yaqin mu ne ko jomb naa loolu su ma pasaroon ni mu baax ci man du ma toog ci lalam waxuma toog ci wetu jabaram min alxaari ma qad kaana min yaqin na bërëb na wëlbit ndaw si daf ko min alxaari ma qad kaana min yaqin ñu jëkkante bunt bi Yuusufa jëkk ko ubbi ko min alxaari ma qad kaana min yaqin ñu dem deuxième porte Yuusufa jëkk ko fa min alxaari ma qad kaana min yaqin troisième porte la ñu dajee góor gi di ak si suuf di yéeg ci kër gi min alxaari ma qad kaana min yaqin mu ne deret ci moom na jësut moom ndaw si min alxaari ma qad kaana min yaqin Yuusufa na jësut moom itam ñoom ñaar ñoo attandoo min alxaari ma qad kaana min yaqin ndaw si kalaami Yuusufa ak jëkkër ji waaye mu sowe ko it ci lay min alxaari ma qad kaana min yaqin na ko loo xam ci surga bu furtaak bay jéema sopp sa jabar min alxaari ma qad kaana min yaqin xam na ne bu yemee foofu góor gi day rëy lu Yuusufa waaye mu tegal sa bopp ne ko xanaa nga tëj ko min alxaari ma qad kaana min yaqin ma alimta man araada bi ahlika shur bi mu laa toog mu ne ko ilan yasjun min alxaari ma qad kaana min yaqin loo xam ci kuy jéem a nopp sa soxna te di sa surga xanaa xanaa nga tëj ko atiqun wa sani isnani fi lxaari laxiyar bu yemoon foofa te àggul kon dañ koy rey atiqun wa sani isnani fi lxaari laxiyar ah Yuusufa nag nga xam ne caaxaan passé na ko du demewul noonu kat yéen la tii rawaa dani an nafsi atiqun wa sani isnani fi lxaari laxiyar demewul noonu mooma oon ci boppam may bañ min alxaari ma qad kaana min yaqiinu ndaw su ne ko waxulu dëgg lu ma lay doyoo nga di surga rek min alxaari ma qad kaana min yaqiinu bi coow li baree ba bari am na benn berse boo xam ne bi ñu ngi fi tëral benn liir min alxaari ma qad kaana min yaqiin ndax ndaw si amul woon doom waaye amoon na rakkam ji jigéen ju am doom doom ji di indi si ci moom ak li muy nampe min alxaari ma qad kaana min yaqiinu alquran seen maandoom ne gos baa leen atte ñoom ñaar min alxaari ma qad kaana min yaqiinu gos ba nag bu doon mbokkam Yusuf sax kon mu tuumaal ko waaye mbokkam ndaw sa la min alxaari ma qad kaana min yaqiin alquran dafa wax ne wa zaada shahidun min ahliha atiqun wa saadi isnani bil qaari laxiyaan am témoignage bu leen seede koo xam ne mbokki ndaw sa la atiqun wa saadi isnani bil qaari laxiyaan xale bi dana coow li matu ko waaye atte bi yomb na atiqun wa saadi isnani bil qaari laxiyaan juróom juróom ñaari liir yi wax xale boobu ci la bokk atiqun wa saadi isnani bil qaari laxiyaan seet leen rek إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الغارقين صديق وثني إذن بالغار الأخيار xooleen bu ñu waaju góor ji ci xotteekoo ci kanam kon dana ñuuxu ndaw si ndaw si défendre boppam من الغار إنه قد كان منه يقين su ngeen fekkee nag mu xotteeku ci ginnaaw da doon ndaw ndaw si di ko xëcc صديق وثني إذن بالغار ñu ne الأخيار dëgg la da dal ko ne tourneel mu tourne ñu seen baatu mbuba bi dox صديق وثني إذن بالغار الأخيار القرآن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم يوسف أعرضي عن آسف واستغفري لذنبك إنك كنت من صديق أفعال وثني إذن بالغار الأخيار yii seen pexe la yii seen pexe la yéen jigéen seen pexe rëy na Yuusufa laggal alxuraan yi wax naan
أجيب وثني إذن بالغار الأخيار
inna kaydakunna azim أجيب وثني إذن بالغار الأخيار ne inna kayda seytaana daif أجيب وثني إذن بالغار الأخيار yàlla nee na dafa mel ni jigéen ñee ëpp iblis fuuf pexe من الغار ما قد كان من يقين alxuraan nee na pexe jigéen lu réeréeréer la أجيب وثني إذن بالغار الأخيار mu ne pexem iblis amul solo أجيب وثني إذن بالغار inna الأخيار kaydakunna azim أجيب وثني إذن بالغار الأخيار يوسف أعرض عن هذا يا يوسف لم يصل يا المنادى ما أعرض عن هذه أتيق وثني إذن بالغار الأخيام
xam nga ahya an hada lu muy firi أتيق وثني إذن بالغار الأخيام bul waxtaane lii de Yuusufa xam nga tubaab xam nga nit ku wax dañu fonk jabar Yuusufa bul waxtaane lii de wa aridaan xala أتيق وثني إذن بالغار الأخيام mu jëna ñoo toppatoo gis nga alquran bu la nettali ay iskala lay doon day dala ci suuf di yéeg di yéeg di yéeg bu dee xaste bu ñëw gën a ñaaw bi paase bu ñëw gën a ñaaw bu paase ba ba muy àggal bu dee tagg bu ñëw gën a rafet bu ñëw gën a rafet ba ba muy paase أتيق وثني إذن بالغار الأخيام seetal rek ni yàlla nettali affaire ndaw si Jóob أتيق وثني إذن بالغار الأخيام فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واحتضب لهن متكئا dem tuuti sun borom a ngeen nettali mbiri Salika ak Yusufa
أتيق وثني إذن بالغار الأخيام wa qalat imra'atum naan tarawidu anfusaha an nafsi qad saqataha inna lanaraha fi dalalin mubin أتيق وثني إذن بالغار الأخيام وقالت نسوة في المدينة أتيق وثني إذن بالغار الأخيام gàcce jigéen أتيق وثني إذن بالغار الأخيام yàlla ngay garaaloo xew-xew bi naan jigéen ñaa ngay waxtaane naan jabari buur bi أتيق وثني إذن بالغار الأخيام premièrement gàcc jigéen su ko jigéen fekkee du gaaw a ruus أتيق وثني إذن بالغار ndax الأخيام buy rooti gis leen bu demee marché gis leen waaye bu koy góor yi neen fekkee lii mu ruus laf dina jëm ñoom lu bari من الغار ما قد كان من يقين
li gàcce itam bu seewee ca capital lay gën a rëy mu tudd capital bi waxaale ne surtout fi madinati ca capital ba أتيق وثاني إذن بالخير الأخيار jigéen ña fekk gàcc gi rëy rëy ngoog ca capital ba ngoog ñaar ñaari rëy ngoog imraatu asisi nag gën a tee fort أتيق وثاني إذن بالخير الأخيار waxuñu caga ba néegam fegg dañ na jabar yi jabar yi jabar yi jabaree ko fooral nag أتيق وثاني إذن بالخير biñ الأخيار ne jabar yi ñuy déglu tudd ñu baaboola tudd ñu surga ndax tudd buur bi imraatu aziz أتيق وثاني إذن بالخير الأخيار ginnaaw loolu yusufa nabu ko moo ko nabal ba tarawidu na tarawidu fata nafse أتيق وثاني إذن بالخير الأخيار jigéen ñi yëg nañ ko mu gën a bon أتيق وثاني إذن بالخير ci الأخيار capital bi la nekk mu gën a bon أتيق وثاني إذن بالخير الأخيار jabari jàmbur la mu gën a bon أتيق وثنيتني بالخير الأخيار jëkkëram jeexalul dara mu gën a bon أتيق وثنيتني بالخير moo الأخيار jëkk a nabaate nabaatuñ ko sax ba siif ko ndax mu jëkk a nabaate mu gën a tee bon أتيق وثنيتني بالخير te nee naa الأخيار la ngoro bëggul ñetti yëf jëkk a nopp baaxul أديب وثاني اثنين بالقار الأقيان gën a nobit baaxul أديب وثاني اثنين بالقار ñu الأقيان nopp la amula dara it baaxul أديب وثاني اثنين بالقار الأقيان تراود فتها عن نفسي قد تقضى أبرنا ونرى في ضلال مبين أديب وثاني اثنين بالقار الأقيان بي
nga gis rek ni yàlla yéeg ak iskale yi wa qaalat niswatu fi lmadinati imraatu aziz turaawidu fataha nazi qad saqafaha ubaa'in ala naraa fi dalal mubin بالقار ما قد كان من يقين seetal saay saay ba ba ñoom Moustapha xas yi ko yàlla xas من الغار ما قد كان من يقين daf ko xas ci juddu xas ko ci jikko xas ko ci bind أديب وثاني اثنين بالقار الأقيان waaw lu des ci xaste yi أديب وثاني اثنين بالغار koo الأخيار xas jikkoom ba jikko ji pare أديب وثاني اثنين بالغار الأخيار nga xas juddu ba أديب وثاني اثنين بالغار ba الأخيار noppi xas bind ba أديب وثاني اثنين بالغار الأخيار ولا تطع كل علاف معين أماس مشاء بنميم مناين الخير مهتد وابتل بعد ذلك ذليل من الغار لا إله إلا الله.
كان من يقين Eh, Moustapha yow laa wax xaj bu bon bi bu ko déglu أبيغ وثاني إثني بالخار الأقيام bul tontumteeg kula alaafin bépp ak giñaakoon fen koo xam ne ci giñ la dëkk te lu mu giñ fen la أبيغ وثاني إثني بالخار الأقيام loolu du jikkoon من الخار لقد كان من يقين ginnaaw loolu maa ngi leen ku ñàkk fayda la أبيغ وثاني إثني بالخار الأقيام loolu du jikkoon من الخار لقد كان من يقين métier mooy masaa in bi nami min rambaas rekk la dëkki أبيغ وثاني إثني بالخار الأقيام loolu du jikkoon من الخار لقد كان من يقين manaa indil xayri di def lu baax te du seetaan ku ko def ku ko def mu tere la من الغار ما قد كان من يقين jikko ju ñaaw jooju nag baada salika zeni min doom la ju jiitu alxayri أديب وثاني إسير بالغار الأغيان من الغار ما قد كان من يقين wala tuti koor alaafin gi ñaar koon boo xam ne lu mu giñ fenn la أديب ma irin ku ñàkk fayda du ànd ak moroomam ay doomam lay ànd di fen ci seen biir masaa in bi na mi min subaak ngoon rambaaj rek ko tax di dugg gën manaa indil xayri di def lu baax te ku ko def mu tere ko ginnaaw loolu nag mottalin lu muy lal di ci toog dafa rëy waaw waaw kay li ñuy toogee bu réyee baax ni ci jigéen taar la mais bu réyee ci góor xas la te muy lal di toog te muy lal di toog yàlla mën a xas ko xas toogukaay jigéen bu rëy taar la waaye góor góor toogukaay yàlla ne jikkoom ji bon joojoo juddoom bu ñaaw boobu bindam bépp bu bopp yàlla mën a xaste ah xam nga lu mu def xam nga nu waa di def ñàkk lu muy def dem ne dem ne Mouhamed dégg naa li ma wax waaye dinaa laaj sama yaay dinaa laaj sama yaay ba xam parce que nee na ko si juddoo jiitu alxayri xam nga doom ju juddoo jiitu alxayri dañu naan baayam du baayam du noonu ci sharia Mhm. ndax li tax du baayam dafa remplir condition dafa jaar ci porte bi am doom te foofu du yoonu kaay am doom li tax ndigal fort da ngay gis googu seet ku jigéen ku mu bëgg may ko cent mille francs yu mel ni yi ma président jox léegi te dañu mañ bërsate ko cent mille francs bu dinaa dine kookale kook rek mu topp kër yi cent mille francs nga gis ku joxe ñeent ak francs su xaar ba jant bi fenk mu tarax laa yow sir dugg ci wanag bi sam ko xam nga vingt francs ëppante naag cent mille francs borom cent mille francs yooyu nag li ko tax di yor di daw daf di dugg ci lu ndigal borom ngeen ci borom keroog su xar ba bëccëg ñu jox ko ganaar mu ndékkee ñu jox ko kafe mu naan fàttali ko. ndigal am solo gaa yi. yaa laytanii kuntu loolu jiital waaw kañ yaa laytani kuntu fiha hayyan waaw kañ ratfu la yaa laytani kuntu fiha gishaan